mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi teeli sunu juróomeelu jotaay ci sunu xasid ak mawaahibu naafi'i démb ñu daanee woon innil qadimu xaysu uqiimu wala arimu saalik tisaa'i kon mu mel ni kon sëriñ bi mi ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa di waqante ak moom lam wax naan la xoo xitaab anta goo gis rek lam doon wax naan loxoo xitaab yi loolu moo ko waral maa ngi nii da waxanteeg yow te ciiraay doxut suñu diggante te coono yaram fekkun ma ci dara fekkun ma ci te maa ngi nii da waxanteeg yow léegi waxante yi nag moo nekk nii mooy li nga xam ne yàlla da koo defal waaye nag jaaree ko ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam defal ko ko loolu moo nekk nii mbokk yi mu ne ko anta yow rasulullahi mooy taawu muqaataba la mooy day waxanteeg yonent bi ndax fu ne gisante nañ jàkkaarloo nañ mu ngi mel ni léeg-léeg sëriñ bi day wax ci damiru xaayib muy di wax ak koo xam ne gisut ko waaye bu yàggee rek day def xusnul iltifaat maanaam mel ni ku may wax ak dafa teg siis mu teg siis moo tax mu ne ko anta yow mu jiri yaay ki may musal yaay ki may xettali minal xaroori ci iblis wa min xuróori ak ci woru daañu saxaayu goo xam ne aji wootee la jëmee ci ak texee di mu ne yow yonent bi salaay salaam yaay ki may musal mooy ku may xettali xam nga yàlla yàlla mooy xettali ñëpp waaye yonent bi dafa doon làquwaay même saxaaba yi sax ñoom dañ koo nettali seen bopp nee na ñun buñ demaan ci xare bu xare ba métier dañuy daw làqutu ci ganaaw yonent bi alayhi salaatu salaam dañ daan daw di làqutu ci gannaaw yonent bi li saxaaba yi ñoo ko nettali seen bopp bu xare ba métier rek buñ nar a daw dañuy daw rek làqutu ci gannaaw yonent bi buñ làqutoo ci gannaawam rek am kaaraange gu mat sëkk moo tax mu ne anta yow mujjiri yaay ki muy musal mooy ki lay moom la junjoon ca xasida xamar Souleymane saakal mu jiiru la si xadis tajartu bihi nga xam ne nañ ko jàngalee woon mooy aji xettale ji nga xam ne képp koo xam ne làqu na ci moom ngir sàkku ma xettale ko lan ci ayu bakkan ak seytaane ak i laago ak yu mel ni gàkk-gàkk yonent bi moo la ciy xettali moo tax mu ne yooyu yaay ki muy musal nag di ma xettali ci iblis iblis du ma mën a yàqal iblis du ma mënal dara ñaar yi képp ku leen topp dañ lay sànq muy lan muy ak woru di def dara jàpp ne yaa nga ca ndeke nekkoo ca ndeke li nga def dara baaxut ca boo demee suñu borom ne dafa jaal naa xabaan mansuuran iblis itam ku topp yoonam ci yoonu texee di rek la loolu moo tax mu ne ñoom ñaar ñëpp daañu saqaa yi waaye nag ñoom ñëpp ant bu jibi yaay ki monsieur musal di mu li muy muy iblis iblis waaye nag ak woru loo xam ne da cee nekk mel ni ku nekk dara nekk ci dara te fekk nekkoo ci dara fi mu la jëmee rek mooy texee di yàlla ñu ci yàlla musal lu métti la jar na ñaan suñu borom musal ñu ci mu ne sunta aar nga sunta mooy ñoŋ gis nga xees ma léegi-léegi sax sëñ Tuubaa dangay gis muy wax ne xesma yàlla jox na ko xesma waaye boo déggee sunta baata sun mooy ki nga xam ne dañuy ñoŋ sa lépp ba kenn mënu ko yàq ku ko bëggoon a yàq sax da nga yàq fu ne li ma lay jox misaal fu ne yoo yoonu murit maanaam yow ki defaru sax mënu ko yàq maanaam ku yàqu mënu ko yàq moom kay da nga cee jëlee ak gën a yàqute waaye ku yàqu sax mënu ko yàq ngir lan boroom da koo aar yàlla daf koo sàmmal aar ko moo tax mu ne sunta ñoŋal nga yow rasulullahi mooy aar nga makkaani sama dëkkuwaay muy barab barab bi mu nekk nga xam ne mooy makkaanam dëgg-dëgg moom la ñuy wax makkaan mooy fi nga xam ne fii la sëñ bi dëkkal boppam léegi mi ngi ci yoonu tukki bi di gestu ne yow rasulullahi fii ma nekk ci tukki bi mag yow ñu toog sama dëkk ba ma bàyyi gannaaw ah sunta makkaan yi mooy ñoŋal nga sama birab waaye sama dëkk am na sécurité kenn du ko yàq kenn du fa def lu ma naqari waaye nag fii ma nekk itam def jox nga fi ak sécurité ndax fi ma bàyyi gannaaw am naa fa sécurité fi ma jëm am naa fa sécurité te xam naa ne danaa tukki ji ba ñëw kon xat maa ngi la ñaan nga may lii ñel ma zamaan yi mbooleem samay jamono ñëpp ak li fi nekk yëpp nag ma ko may waaye nag bisil baqa i ci kàttanu ko yàlla muy borom des gis nga dafa mel ni kon rasulullahi moo koy day bàyyeekoo ci rasulullahi di ñëw ci jëmmi sëñ bi waaye ci yàlla lay bàyyeekoo yàlla neex mu di ko defal sëriñ bi moo tax mu ne ñoŋal nga sama birab li nga ma ak sécurité waaye maa ngi lay ñaan koon bii ñaan la fee day wax day wax waxinu sant foo déggee mu ne defal nga ma lii rek mooy waxinu sant xam nga tey fi ne bu ne sunta makaan yi sant day dugg min baabin taxadusu bu ne sitta amaan yi sant day dugg min baabin taxadusu waaye bu ne xap lii kooku moom ñaan la moo tax mu ne xap yàlla na nga may lii ñeel ma sama nii mboolem samay jamono li nekk jamono yëpp na ma ko may waaye nag bisil baqaa i gis nga yàllaay def waaye ci laay lay jaar bisil baqaa i ci kàttanuk yàlla muy borom des nga baa gi mooy baawu tawsul maanaam yàlla mooy ki koy def mooy ki fee sax ba faw moom mooy ki koy def xam nga gis nga jàngoor go ci jas bu xulóob mu ne la xar baax yonent bi lu ñuy bëgg li ñuy bëri bëri ci kàttanu yàlla maanaam duul ci yonent bi de xar baax yi mu doon feeñal moo ji saadiya loolu ci kàttanu suñu borom mi borom ak des la waxoon na la ko ci jas bu mu ne ko anta yow yonent bi suloo ki yaay sama yoon wu may jaar wu may jaar ilal maliki jëm ci yàlla muy aji moom ji maahil ufooki yàlla mi nga xam ne mooy aji far lépp luy dóor ak duut muxtii naqaa yàlla miy aji joxe ak set ci laab ci bépp bokkaale ak tëq-tëq mu ne yow rasulullahi yaay sama yoon jëm ci yàlla muy aji moom ji yàlla bi mu moomee ñëpp dafa sàkk aw yoon ñi jëm ci moom nee na ko rasulullahi nag yow laa def sama yoon yow laa def sama yoon jëm ci yàlla muy aji moom ci yàlla moom moom lépp bi mu sàkkee lépp nag def rasulullahi muy yoon wi nga xam ne mooy jëm ci yàlla rasulullahi la def muy yoon wi moo tax gis nga sa jasbul xulóob dane ko salli ala baabi naxeen saaka siraatal mustaqim yàlla nga doon xel yow yàlla ci kii nga xam ne mooy buntu xéewal gis nga sëñ Tuubaa li muy tagge yonent bi dafa garaaw saaka kookee ma leen di wax ñu naa ah, mu ne siraatal mustaqim waxuma la ci yoon wi la bokk de waaye mooy jëmmi yoon wi maanaam yonent bi mooy yoon moo tax mu ne ko wa annaha siraati mustaqima suñu borom ne kii mooy yoon yi na ngeen ko topp bu ngeen ko topp rek jaar ngeen ca ñellu wa ca ñellu ku ci jaar ci pindab safar rek ci ngay daan moo tax mu ne ko ndax rasulullah dañ koo xenculoo njubug ñu ko fi jiitoon wulaay kala ulaayka lazina hadallahu fa bi hudahumu iqtani dañ na ko royal njubug ñu la fi jiitoon muy sunu maam ibrahima ak yu mel ni moom moo tax mu ne ko yow yaay sama sóobu waaye jëm ci yàlla muy aji moom ji yàlla mi nga xam ne mooy aji far lépp luy dóor al ufooki muy wax joo xam ne tegoo ko fenn wax joo xam ne dara amut ci moom nga digg alxuraan léeg-léeg bu ñu taqalee ne yonent bi dafa maanaam dañuy wax ne yonent bi moo créé alxuraan na wax la joo xam ne duñu duut la yàlla di ko ba mu set wa qaala la seen kafaroo in haasa ila ifkun muftaran waaw in haasa ila ifkun ifkun nag mooy ufóog mooy sos loo xam ne dañ ko sos te amul dara amul ca nee na loolu nag moom mooy ki koy far moom yàlla waaye di ko faree ci daraja yonent bi alayhi salaam waaye moom yàlla moom mooy aji joxe set almumti ñëw na ci xasida gi ñeenti yoon boo ko adapté boo ko dee dalay jox 500 loolu itam secret la muy almumti guy tekki yàlla muy aji joxe ji kon yow rasula yaay sama yaay sama yoon ilal maliku jëm ci yàlla muy aji moom ji maahil ufuki yàlla muy aji far lépp luy dóor mumti naxa yàlla muy aji joxe set ak set mu ne ko yow rasulaay ba tey anta yow al jëmilu yaay ku taaru gi lakk jëm na ci yow amilu sama jeng anta yow rasulu yaay ndaw lu yàlla yónni bilaa jira ay ci lu ak rawante njëkkalante nee na ko yow maanaam lii ñuy wax rusul fàggoo ko maanaam bilaa jiraa yi buñ ne jiraa yi rek mooy xeeti faggute maanaam tey xam nga lu imaam Busiri waxoon ne tabaarakallaahu maa wahiya bi muktasibin wala nabiyun ala xaybin bi mutahabin nee na ab yónent de duñ toog di ko gint wala ab yónent duñ toog di ko faggu mukk wala ñu toog rek ne tuumaal la ne yaay yónent bi déedéet yàlla mooy xool ku ko soob jox ko ko waaw kenn du ko faggu waaye itam duhut li ñuy tuumaal nit nga xëy xëy rek wax ni ki ni ko yaay yonent bi déedéet sëñ Tuubaa nag loolu lay wax nee na ko yow yaa ndaw lu yàlla yónni ci lu rut ngay rawante maanaam fàgguwoo ko yàlla moo la yónni def la nga tiim ñëpp gën ñëpp moo tax man yow yaay ko taaru te yow rek ci lay jeng di jëm ci yow di tagg di julli ci yow yow yaay ndaw li yàlla yónni te lu dul nga koy fàggu maanaam fàggoo ko waaw fàggoo ko tubaarkalla moo tax mu ne ko lakka ñeel na la ba tey lisaani samaw làmmañ mooy li muy génne maxal jinaani ànd ak sama xol mooy li xol bi xol bi ci boppam moom lay génnee tawaalif yi moo tax mu ne wàccal fu aadiya xasinatil olom anasihaati innakal muxtil def sama xol muy fooraa ci xam-xam yuy jëriñe yow yàlla sama xol na nga ko def muy fooraa ci xam-xam yi dépp xam-xam yuy jëriñe def muy xam-xam yi dépp xam-xam yuy jëriñe kon Sëñ Tuubaa laqut xam-xam bu dul jëriñe ndax innaka innakal muxtil xadim yow yaay xamaakoon bi yow yaay joxewaakoon bi mu ne ñeel na la sama làmmiñ ànd ak sama xol waaye nag man wala uddaan yi ma dem lante ka soxaraa yi ni ki woykat yi daan ko defee di dem lante dem mooy woykat yi jamono bi sunu borom di wàcc alxuraan yonent bi dafa jamono wanteeg maanaam woykat yi lu ñuy wax asonraw ay point ñoo xam ne ay woykat lañ ñoom arab woy rek lañ gëmoon waaye gis nga sunu borom bala nga xam ne moo yéeme dafa indi loo xam ne gëlëmal na woykat yi muy alxuraan su ne alxuraan ba léegi dafa yéem dafa yéem ñu bari moo tax yàlla bi mu ko mel woykat yi bari nañ ci jamono yonent bi mu wàcc loo xam ne da di wetam loo ñëpp ñoom ñëpp daleen di di loo te bu njëkk dañ daan wëy dangay gis koo xam ne day wëy day wëy di xas moromam wëy dafa am dafa bëri ay façon wëy am na fukk ak juróom-ñett fukki xeet ak juróom-ñett waaw fukki xeet ak wëy juróom-ñett am na ci arab léegi dañ daan wëy di xasante waaye itam dañ ko daan def ngir lañ leen di ci pay nga xam ne tey léegi mën ngaa jàpp surga lu mel ni jàpp surga di ko fay ñoom it dafa amoon ci buur yi ñoo xam ne dañ daan jël ay woykat ñi leen di naññil diw ñi di leen fay noonu rek la meloon bu ko defee ñooñu itam di leen tontu di leen réponse moo tax suñu tubaab ne sama làmmiñ de ak sama xol yow rekk laa ko jox waaye nag du ma dem lante comme ni ko woykat yi daan ko defee daal dina ko anta yow ak sa yoon yi benn yoon képp la benn yoon képp képp mooy yow mooy wa anasa siraat yi rek bi ka nekk na ci yow alwusoolu yegg ga ca yàlla li man ñeel yàlla mi nga xam ne yu niilu dana maye xayra sara yi ngën ci koom-koom muy ay xéewal mu ne ko yow rasulaay yow yaay yoon wi benn yoon képp la kenn mëntu jaar ci weneen yoon ba yegg déedéet benn yoon képp la mooy rasulullah yi moom la yàlla joxuñ yoon wi nee na kenn mëntu jaar feneen yegg ci yàlla kon benn buntu képp la mooy sëli ala babil huda benn buntu képp la foofu nga mën a jaar ba yegg ci yàlla te mooy yoon wi te muy rasulullah yàlla mi nga xam ne saa yoo jaaree ci rasulullah yi ba yegg ci moom yàlla dana la may ngën ci ay koom-koom te moom nag dafa jaar nee na dafa jaar dafa jaar ci bi ba yegg ci yàlla sëkk ba yàlla jox ko ay géeji leeram yépp mu naan ba yàlla jox ko ay géej leeram yëpp mu naan ko kon nga xam ne sëñ Tuubaa mooy ko xam ne kenn xamul ko mu mu dellu waxaat ne moom jëmi sëriñ bi mu dellu waxaat ne ashab taxor yi ashab ta xëy yi kamal yi kalkubara yi mu ne ashab dàq nga bam dem xor yi sama rafle waaye ashab dàq nga bam dem xëy yi sama réer ñaar yu bon la li gën a bon ci nit mooy riir ak rafle kanaa riir rek doy na waaye boole riir ak rafle boole riir ak ak rafle lu bon a bon la daa fa kubar mu ne dàq nga ci man rafle ndax waxoon na ne ci muqaddamatul am daal tagg na yonent bi tagg yonent bi ba mu jox ko kaas yépp géeji leer yàlla ya ba jël ko jox ko mbooleem kaas yi mu naan ko waaw ku óosu ko tasqini biha saabu saaratin wali xutta faydan ak jalal bahra wal fulka géej yëpp laa naan leen géej yëpp géej yoo xam ne kuñ fa mës a yóbbu boo naanee ci góor yàlla yi maanaam lu toll ni bu buñ ko xoolee noonu lay toll sëñ Tuubaa sëgg ci géej gi géej gi géej gi ñeer da ko naan ba mu jeex mu commencé di tagg yonent bi di tagg yonent ba yonent bi no xamatuma nu mu lay def léegi kaa ñi dem ma yóbbu la ci yàlla léegi yonent bi ci la ko waxee na ko kama athamta sal xor yi jaa ihan wa min kablihi xalasta yaa xayra man fakaan woddu nga ma waaye jox nga ma dama damaa rafle woon nga woddu ma ma xiifoon nga jox ma ñam ma lekk ba suuru ma rafle woon nga woddu ma loolu yëpp nga defal ma ko waaye seytaane ak jéng tëkkoon ma nga dajji jéng ka ba ma mën a bëtt jéng yooyu yëpp moo tax cëy Sëñ Tuubaa kenn du moo tax mu ne asabta dàq nga xor yi sama rafle waaye asabta dàq nga xëy sama réer maanaam rafle dalun ma réer dalun ma kamal tam mottali nga rëx yi sama càmmute mooy matal nga sama càmmute maanaam sama cër yëpp ak li ma war a sàmm tout maanaam defal nga ma ci sa ndimbal ak sa mbaax ma man koo matal kalku baraa yi ni koy woy màgg yi niñ ko matalee woon ñu gaa yàlla yi nga xam ne mooy ñi yegg ci daraja yu kawe ñu màgg-màgg ñi nee nañ daan sàmmee seen cër ak nañ ragalee woon yàlla duñ tooñ duñ def dara sëñ Tuubaa ne def defal nga ma loolu matal nga sama càmbute ma mel ni gaa ñu màgg ña nañ ko daan defee mu ne xayral anaam yi yow ngën ci ba léegi mu ngi wax moom fii ka nekk na ci yow xillaam yi samay xalima yi muy xasida yi muy taalif maanaam da ko bëgg wax na rek yow ngën ci mbindéef maanaam xasida yi may taalif jëmut ci kenn du jàdd fenn ci yow rek direct li jëm bilaa madaami bilaa malaami te duma la yedd mukk doo ko firee ci lu dul ak yeddeel de kon day mel ni moom dafa jubloo wax ne maanaam pour yonent bi yedd ko dii dit maanaam ci lu dul muy yedd yonent bi li ci jublu fu ni sëñ Tuubaa bayitam yëpp dafa am lu muy maanaam dafa am lu muy ji xam nga sëñ Tuubaa dafay fekkoon ay woykat yoo xam ne dañu doon xas yonent bi xam salaatu wa salaam woykat yi arab yi am na ci ñoo xam ne ñu bari dañ daan woy di xas yonent bi ku demee ni Kaxab laataa muy tuub dugg ci lislaam Kaxab xam ngeen ne tagg na yonent bi tagg yonent ba yonent bi solol ko ab manto waaye njëkk muy tagg yonent bi daan na xas yonent bi alayhi salaam tagg ko di ko xas waaye bu taggaan rek yonent bi daraan woo ku mel ni xasaan arab yi bu buñ ko ŋàññiwaan xasaan lay wax mu tontul ko xasaan ku mën a tagg yonent bi la waaye kaab mii tagg na yonent bi wax ci moom wax yu kéemaan yoo xam ne kenn du ko wax ba yonent bi sax ne ku ko gis rek maanaam na ko rey ba yoonal deretam na maanaam nañ ko rey boobu moom Madina la nekkoon waaw am benn waay ju baax dal di dajeeg moom na ko ah yow day rasulullahi wax na ne fu ñu la gis rek yoonal sa deret na nañ la rey waaw mu dal di solu xam baax ak rasulullahi ak mën a defal tiraangam ak njëkkam mu dal di solu ba set solu mbaxana kaalu lépp mu def ko dem ba ci rasulullahi na ko yaa wax ne ku gis kaxab na ko rey mu ne ko waaw mu ne bis ni ki tey kaxaba ngi nii mu ne ko baxal naa la yonent na ko baxal naa la te xoolal loolu te daraan xas yonent bi waaye nag ci la commencé di tagg yonent bi ba yonent bi solol ko mant sallallahu alayhi wa sallam loolu nag moom lay sëñ Tuubaa di bàyyi xel day junj day isaara loolu manaam loolu bañ ko cee fekk ci tagg yonent bi maanaam tagg ko ba yàgg mu di ko ŋàññi wala kenn fay ko xaalis mu di ko ŋàññi léegi loolu léeg-léeg day am moo tax mu yow ngën ci mi ne fii ka ci yow dong la jëm xillaa mi samay xalima yu may taalif samay xaside yi ma jaas la rek waaye xaside la ci jublu bilaa malaami te duma la yedd mukk waaw maanaam jubluut wax na yonent bi yonent bi yedd ko moom jëmi sëñ bi déedéet moom jëmi sëñ bi ci lu dul muy yedd yonent bi bal li fi nekk li am kay biri daa loo gërëm rek lu lay kontaan rek laa lay tagg waaye nag lu lu lu lay métti wala loo xam ne dana tax nga tëkkuma ci déedéet comme la daloon woykat yu njëkk yi déedéet loolu du ci fekk bal biri daa yi loo gërëm rek yoo yonent bi waaw loo gërëm rek mu na ko yaasal jëmmi la woo naa la yow borom taar bi yaasal fa dii la woo naa la yow boo dajalee ngë ngëneel yépp yow yaay boroom ngëneel yi anta yow wasila yaay sama yoon yu may jaar yaay sama wasila li sil xadaa i jëm ci yàlla muy borom ak atte ga mu ne yow ngën ci bi def yow yaay borom taar yi maanaam boo dajalee taar mu nekk benn dank jàppal na yonent bi mooy taar waaye boo dajalee ngëneel yi bañ nekk benn digg jàppal na mooy yonent mooy jëm yonent bi xam nga ngëneel yëpp dañuy tasaaroo ci nit ñi sunu borom nee na walaahu yàqtasu bi rahmati man yi saaw wallaahu waasiun alim yàlla nee na maay jagleen ngëneel ku ma soob ndax man maay aj yaatu ji maay xamaakoon bi léegi yàlla ngëneel yi mu jox ay jaamam yëpp boo ko dajalee woon ci misaal ñu ne mu ngi nii kooku ma jëm yonent bi saay tam ngëneel yëpp yàlla bu koy joxe ci darajaam la koy jox ngëneel ñaar a am euh, maanaam fadlul iktisaabiya ak fadlul xusuusiya ngëneel loo xam ne yaa ko fàggul sa bopp ak ngëneel loo xam ne yàllaa xool ci coobaram rek jagleen la ko waaye fàggoo ko nee nag boo xoolee lépp mooy yonent bi nee na mooy sama wasila ndax baana li kulli man lahoo man xoolu anna wasilati huwa rasulu leer na nañ ci képp ku am xel ne maanaam sama wasila dëgg-dëgg daal mooy yonente bi alayhi salaam waaye du keneen moo tax mu ne bii aroomu jamihal xayru min maliki fa huwa al tu fii sirrin wa fii alani ca noonu ya nee na mooy sama wasila ci lu nëbbu ak ci feeñ lépp moom yonente bi salaam kon anta yow al wasila yaay suma wasila mooy fi may jaar jëm ci yàlla li ci xadaa i ñeel yàlla muy borom ak àtte ka alxadaa maanaam ci turu yàlla yi la mooy yàlla bu yowmal xiyaamee maanaam mooy ni muy atte jaam ñi di leen réglé moom ci turam yi ci la bokk mu ne fii ka nekk na ci yow su kooni samak dal ilal ni jëm ci yàlla muy aji dëgër ji maanaam bilaa futoon ci lu dul benn na ci yoon yi wala xidaa yi du caagi ni jeex jeex ga muy dal na ci yow maanaam nekk na ci yow maanaam ci yow lay ci yow bu may dem ak bu may toog yëpp ci yow rek lay dal waaye nag jëm ci yàlla ci yàlla laa jëm waaye ci yow rek ci yow rek lay toog waaye nag jëm ci yàlla mi nga xam ne moo tudd almatin wa anna laahu warasaaxu soo xuwatil matinu almatinu ci tur yàlla la mooy ku dëgër ki mooy ku jam mooy ku dëgër ki wa anna laahu warasaaxu soo xuwatil matinu almatinu ci tur yàlla yi la mooy ku dëgër ki mooy ku jam mooy ku dëgër ki nee na yàlla mi tudd matin nag comme mooy ki dëgër ki te ci yow la ma jaarale kon nag ci yow laay jaar jëm ci moom mu dëgër ki fexe yegg ci moom te yoon yi nag benn fitna du ci am wala ma dem ba yàgg ma dëpp wala ma dem ba mënatuma ma dellu dëpp ndax am na ci gaay yàlla ñoo xam ne danañuy dem ba yegg ci ay maqaama yoo xam ne duñ duñ ñemee yegg ñi dëpp waaye Sëñ Tuubaa nee na yoonam moom amul fitna waaye amul jeex itam mu ne xayral ibaad yi yow ngën ci mbindeef baabal ayaad di yow mi nga xam ne yaay buntu xéewal yi nooral bilaad yi yaay leer gu réew yëpp asna gën caa yëkkati rajaa yi yaakaar yow mi nga xam ne sama yaakaar yëpp jox nga bokk lu bu ma yaakaaroon lu tuuti nga jox ma lu gën a kawe loolu nee ne yow yaay ki gën ci jaami yàlla ñi xayralaay baari yow yaay ki gën ci jaami yàlla ñëpp waaye xéewal yëpp yaay bunt ba kenn tu am xéewal wala yàlla di jox kenn ay xéewal ba noppi te du ko jëlee ci bunt ba di ko joxe yow yaay buntu xéewal waaye réew yëpp yaay seen leer boolem fu julli nekk rek foofu tey sa leer gi moo fa yegg yow rasulaay ndax wax naa leen ne keroog bi mu juddoo leeram gi dafa jolli ci mboolem aduna bépp kër bu leer gi dugg rek am na saaba bu feeñ sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne nooral bilaat yaay leeru réew yëpp waaye nag asnaa yaay kii gën caa yëkkatiku rajaa i sama yaakaar lu ma mos a yaakaar rek nga dal di koy jox te lim gënoon a yaakaar moom jëmi Sëñ Tuubaa mooy doon doon maanaam alhamdul xadim waaye nag ñi liggéeyal yonent bi mu gën cee kawe moo tax mu ne mulku la ci laalil baqil qadim jaal la ni asna qadim kon li mu doon yaakaar mooy asna qadim doon asna qadim kon loolu la doon yaakaar moo tax mu koy wax fii asna raja yi mooy lam doon yaakaar mooy asna qadim doon gën cee yëkkatiku ñuy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam allahu akbar mu ne ko yaay leerug réew yi waaw mu ne ko asabta xam ma maxawta sul nii lii jut bi almi daa naja yi mu ne asabta dàq nga xam nii sama réer aw ma aw ma waaye maxawta wala nga ne asabta dàq nga xëmmi ci man njàqare sama njàqare waaye ñaar yëpp benn la daanaka maxawta far nga suul mi sama tooñaange kon jut yàlla na nga tabe rek lii ñeel ma bi mi ci xam-xam buy jëriñ daa ay najjaa yi boo xam ne day fekk nit ki ci ree réer di ko woo jëmee ko ci ak mucc allahu akbar mu ne dàq nga ci man ak réer far nga ci man ak tooñaange dàq nga ci man réer dàq nga ci man ak tooñaange waaye itam li ma lay ñaan nag ma may xam-xam boo xam ne daf may génnee ci réer ba noppi di ma woo jëme ma ci ak mucc kon asata dàq nga xam ni sama réer man réeruma waaye ma xaw ta far nga ci man sul mi sama tooñ du ma tooñ kenn kenn du ma tooñ waaye lii jut maa ngi la ñaan nga tabe ma mooy nga may ma bi ilmi ci xam-xam yoo xam ne daa ay na dañ may fekk ci réer di ma woo jëme ma ci ak mucc mbokk yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.